ولا تخاف من ضائر فهيا شفاء للصدور وروض كل ذاكر وهيا تيسير الأمور من كل صعب نادر بها تقال العثرات لدى المليك القادر بها تنال الدرجات من النعيم الزاجر فحبها asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyu di leen ziyaare gis ngeen fii nga xamante ne moom la taxaw yéen a ngi ànd ak ba tey seen seen Cherif Dabakh tey ñu ngi nekk nii ci raw rawdu Thierno Adama gay waaye ñu daje fekk kenn ki nga xamante ni kenn la Thierno Adama gay mu ñëw at bu jot ñu xam ka fi muy Thierno El Hadji Mamadou Ly bu Ciloñ ànd ak le maire de Ciloñ ñi nga xam Mamadou Alassane Sow tey mu nekk lu spécial tam ci seen cër sëriñ baax pe kilifa gi ginnaaw biñ lay nuyoo noo ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax lépp loo xamante mën nga ko wax tamit ci sa diggante ak Thierno Adama ak li wala ziar ginnaaw bi nga nuyoo. tabaarkalla jërë sama diggante ak sëriñ bi yàgg bépp ci moom mu ngay dund sama diggante ak moom yàgg na dañu ñëw fii pour ziar toujours dañu ñëw fii pour bi may bi may dund ba léegi ñu ngi ñëw rek pour ziare ko tabaaraka tabaaraka ci kàddu yi nga xamante ni dégg ngeen ko ci moom tey lan nga xamante ni mën nañ ko xam ci njàngat depuis at nga ñu ñëw ci ziar bi waaw su la neexee mën nga wax ci pulaar waaye yan njàngat nga mën a am ci li nga xamante ni mooy ziar bi ñu defal Thierno Adama Gaye ci wàllu tarbiya ci wàllu jàngale ci diggante jullit ak jullit ak diggante doomu aadama. enen kam enen gande makko tan mu ne sëriñ bi mu ne da xam si sëriñ bi o jàngi o mu ne dafa jàng te jàngal uh, nitu diine yi yëpp enen keydi kadi ko arif billahi moni dañi seede moom arif billahi la ko garɗen ɗo ko eɗen garanno ɗum guila e guur moni moom dañi ñaw fii depuis sérigne mbi defeten ɗum o amma jikkuji makko moƴƴi o amma moom ay jikku yu baax si moom nekk si moom hasin en ñalliɗo limtude même buñu yendo fiide uh, lim ay jikku yu baax mu nekk si sérigne bi en mbawa gaynude muñi duñu jeex uh, uh, jikku yi enen kaal hen tan ko ko raɓɓiɗi ko minen dañi waxtu si gana kii rek gana gatta si kii bi jikku bi rek eɗen gandi ko muñu moom dafa am ki wàllu si si yàlla subhanahu wa taala borom cër borom cër la si subhanahu wa taala moom dafa wàcce si boppam si àdduna yëpp moom moom dafa uh, kii dafa mun a joxe ku mun a joxe la waaw mooy na Adam waaw moom tamit Ceerno Adam mooy sëriñam moo ne que bépp nit Ceerno Adam dafa wàcc si wàcc boppam si même même même mun na nekk si setam mais mu wàcc boppam si moom moom loolu la ñu xam si loo mu ne mu ñu wax yëpp jikku si Adama Thierno fii mu ne yéen tamit yara ngeen jëf mm-hmm. am ngeen baraaj bu baax am ngeen jërëjëf mu bécc bépp yiw bu nu am fii ñeen ñëpp dinañ di seddoo si yiw bi bi soobee yàlla incha allah waaw man ma dellu si tuuti man kii mooy sama sëriñ kii tamit sëriñ Thierno Adama Gaye mooy sëriñam moo ko tarbi depuis 87 day xamante sëriñ bi Côte d'Ivoire lañ daje woon depuis loolu ba léegi sëriñ bi bàyyil moom sërif mais dafa bàyyi affaire sërif yi yëpp te sëtu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mais dafa bàyyi yooyu yëpp mu wàcc boppam tamit mu ñëw si sëriñ bi iñin taalibeem yëpp ay daayireem yëpp ci loñ mat na ay téeméeri nit góor ak jigéen ñëpp ñu ngi fii eh, ngir bi incha allah jërëjëf waaw comme ni ngeen ko déggee ba tey ki nga xamante ni mu ginnaaw bi ñu nuyoo Thierno di ko sargal ci li nga xamante ni jataay boo xam ne da def ci seen chaîne Chérif Dabakh TV lii tuutiwul ci ñun parce que xat-xataay bi mu ngi ci waaye yëg na ni ku am cër doo maye cër ku amul cër doo maye cër lii ku am cër rek ko mën a def yal na yàlla gën a yokk say daraja yokk say martaba yàggal laak mbooloo bi kon dañuy dem ci kenn ko tamit ki nga xamante ni tey mënuñoo wax ne la première autorité ci Lognes muy le monsieur le maire Amadou saw monsieur le maire tey ñëw nga ziar si Thierno aadama gis nañ léegi ngeen génn ci rawdu bi ban jàngat nga mën a am ci ziar bi ànd ak sa kilifa sa sëriñ. waaw d'abord c'est de remercier Dieu le Tout-Puissant ensuite euh, remercier Thierno Adama Gaye et nous sommes là aujourd'hui avec euh, beaucoup de monde comme dit l'un de nos collègues euh, Thierno Alhaji Mamadou c'est un shérif mais c'est un homme de Dieu un homme de foi un homme paisible, euh, vraiment que nous, en tant que population de Tulogne, c'est notre référence. C'est notre référence, vraiment ce que nous souhaitons. Ensuite, Tierno Adama, c'est son marabout. Lui aussi, nous aussi, c'est notre marabout. C'est notre référence. En tout cas, là où il met ses pieds, nous allons l'accompagner. Aujourd'hui, plus de 10 véhicules sont derrière nous au niveau de la commune de Tulogne qui sont venus en masse, leur apporter le, son soutien. Nous sommes venus avec des chefs coutumiers aussi, avec euh, d'autres chefs religieux, avec des notables, les délégués des quartiers de la commune de Tilogne, les notables, tous sont venus accompagner le guide religieux de notre référence de, de la commune de Tilogne. Donc, euh, et, je dis encore, euh, c'est une réalité, c'est une réalité. Celui qui, qui, qui se présente ici une fois, deux fois, verra vraiment beaucoup de choses améliorées au niveau de sa vie. Moi, je l'ai vécu. Donc moi, je l'ai vécu. Et je demande aux autres musulmans, aux autres croyants, de suivre ces pas. Les pas du guide religieux Al-Hadi Mahmoud de suivre les pas de Tcherno Adamagay. Donc celui, un croyant qui suit ces pas, va voir le jour. Euh, de ce fait, nous sommes vraiment contents. euh, venir vraiment accompagner pendant trois jours, nous, parce que nous, on vient depuis le jeudi, et nous remercions Tcherno Mamadou Adama Gueye de sa générosité, de son accompagnement, de, de, de, de, sa volonté de nous accueillir avec beaucoup de, euh, fierté. Et nous remercions aussi euh, à, à, nos, voisins de Nyanga Idi, monsieur Djabi, vraiment qui nous, a, qui nous ouvert toutes les portes, vraiment qui nous, qui nous a beaucoup gâtés. On ne manque de rien. nii de nourriture, nii de l'eau, nii de l'électricité. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin que, le, que Dieu nous accompagne nous tous. Et, euh, ñu fekkee day yu bëri yu bëri yu bëri yu bëri je vous remercie. voilà mbokk yi ni ngeen ko gisee nous remercions chaleureusement le monsieur le maire en même temps que dañuy gërëmaat bu baax a baax wax suñu sëriñ di sàkku ñaan bu baax a baax ci nga xamante ne mooy chaîne bi chaîne bi nag chaîne diine la. Mm-hmm. moom lañu ñu tuddee la chaîne de référence religieuse. kon nag lu wàllu waaye bëgg ci wàllu référence su diine rek soo duggee ci chaîne Chérif Dabakh di nga ko am. kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax nga ñaanal ñu yow itam. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaanal tamit suñu kilifa ki nga xamante mooy Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane. Mm-hmm. yàlla dogal na chaîne bi moo nekk ca bopp. waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf. ngeen ñaanal ñoo ak tàggatoo mbokk yi bisimilah ñu def ñaan def fatiha salatul fatiha yàlla na yàlla ñu yàlla na yàlla ñu ñëpp ñu def ñu jëm ci kanam de ñëpp di dem ci kanam bu soobee yàlla incha allah bisimilahi rahmaan amin rahmaan rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin amin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 kay Chérif ñu ngi lay ziar baax di lay lay jërëjëf ak monsieur le maire kontaan nañ bu baax a baax